bilai masyaallah allah wa hara hara ma jàppale la vraiment jërë ngeen jëf ñun moom ay biir yi xam nga permettre ñu def dara mais yéen moom allah leen fay quoi waaw leen fay dafa saf de muy buum kaane barki yalla man yoy dama ko noy dem man dama sama loxo dafa nuyu man ma maa doon ko dugg ko dugal ci ci si dama sama dafa nuyu xamna ni projet est ce du wax affaire bi jeex na est ce du wax affaire bi jeex tay peut être da wone ke déglu ah waaw nañ deewul rek jaajëf Dạ. Mom, Mom, you and me, Mary, Mary, boo. Ang buhay niya ka, ang bër bi war rek lay def yaa ngi borom borom gémañ tal bi borom borom kii bi borom Chris Brown Chris Brown la ko moom borom koy wax xool bàyyi dafa xeex ba ñëw après ba jaxam xaaral ma gis ko